xaside yi rek fi ne xaside yi rek fi ne lu dul xaside yi lu dul xaside yi dara néew fi xaside yi rek fi ne xaside yi rek fi ne nañ jàpp xaside yi jàpp xaside yi xool xaside yi xool la ñu suñ jubaa jox bàyyi ñu xaside yi rek xaside yi rek xaside yi dara ñëw xaside yi rek waaw jërëjëf jërëjëf allahumma amiin jërëjëf jërëjëf maanaam xaside yi ngay waxtaan lu jar a fonk la ndeysaan ndax xaside yi ci ci nekk sëñ Tuubaa moo ko ci def ndeysaan waaw moo ne xaside yi gën na lépp ba mu def alxuraan maa ngi rafetlu émission bu baax jërëjëf waay ci yow mii def suñu taw gën a yàgg ci lool te wér. amiin parce que li ngay teg neex na lool macha allah. waaw dëgg yàlla parce que li ngay teg kat nañu ku xamul dara dara sax dañ fi mën di jàng. parce que daal moom comme ma ne jàpp wala nga jàpp lépp lu baax rek. bàyyi ko nag moom mooy jàppoo dara. jàpp ko nag mooy jàppale lépp lu baax. waaw jàpp ko nag mooy jàpp mooy jàppoo dara. waaw yéen ñu Sëriñ Tuubaa taxaw leen baax a baax parce que Sëriñ Tuubaa lépp lu ngeen bëgg a fekk yéen a ko Sëriñ Tuubaa ci ci bakk ci na ajabi bi kontaan nañu lool demoon Sëriñ Tuubaa taxaw leen lool suñu suñu kaw si ñu am na wax dëgg yàlla dimanche bi jotee ñu bëri gën ko jàpp ñun da wàcc jàpp màgg bi ñu bëri gën ko jàpp suñu dëgg yàlla yàlla di bàcc sama samba waaye moom dañ leen bëgg leen faral diglu bu waaye daal mais daal daa amati solo daa amati solo lool lool macha allah bëccëg bànneex tawfeex ak naataange ci seen émission animation facile ndeysaan ndeysaan xam naa daal suñu moom doy na war daal ci war gàll moom leer la leer la ko ñu leen ñaanal suñu moom dafa leen gërëm suñu tubaab pour ñu suñu soog lool ñu leen di teewlu bu baax a baax a baax rajo yëpp ñu yoram bi de wax dëgg yàlla. naan nañ ci xasida yi bu baax a baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. barke Sëriñ Tuubaa yéen daal fu ngeen bëgg rajo Baag yàlla na fa rajo Baag waaye yàlla na ko Sëriñ Baag fu ngeen ko bëggee waaye. allahumma amiin allahumma amiin. barke Sëriñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf. naan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw kay yéen tam nag ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax. jërëjëf waay sëñ bi. ñaan taw ci jàmm na waaye yàlla na dolli bu baax a baax. allahumma amiin. waaw kay jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. moom daal li ma lay xamal mooy leen foofu nga ko teg rek bu ko teg foofu la foofu rek la li ma leer ci leer yàlla ba ca ayib yi doy nañu man day li ma mën a waaw bu ma kenn nar a yab. ma jàpp ci xasaay yi ak di siyaara ji barab. suñ Cheikh Thioro Mbacke. suñ Cheikh Thioro Mbacke. Touba Gueye ñu. waaw xam nga bu baax ñu baax ñu njëriñul ma waaye. njëriñul ma waaye. waaw waaw xam naa ñoom loolu ñu ko balaa wax. waaye li ci gën a am solo mooy li ngeen di liggéeyal Serigne Touba ñun dañ ciy dégg suñu toll sax li ñu mën di am rek di teewlu suñuy waxal ci Serigne bi ak di ñu tegal ay mbir la moo ñu ko gën a. kon daal di ñu ñaan ci barke Serigne Touba Fatou Seye suñu borom jëm leen a jàppandal ñëpp lañ bëgg ci yéen a liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen xam ci lu kawe seen bopp. kenn ku nekk wax dëgg yàlla sant sëñ Tuubaa bu baax koy jàng ci tasaay. dinañ ko am na solo de. ñoom ah, boobu daal moom bu ñu ko fi teg baax na boo. ndeysaan dina fàttali dina yeete dina xam. dëgg la dëgg la dëgg la. lépp lañ ci dëgg la dëgg la dëgg la. ndeysaan sëñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf ñu ngi ziar bu baax a baax soxna Oumy Mbacke Bassirou Amar sëñ Bassirou Amar bu baax a baax yéen yàlla nañ ko ziar di rafet la émission bi jërëjëf jërëjëf waay eh, di la encouragé jërëjëf bu baax a baax jërëjëf jërëjëf Cheikh Modou yow bii ñu soo am na solo ndeysaan ndeysaan baagul tawee nga ndam li moom yaa ko yenu jërëjëf waay sëñ Xaadim Cheikh Modou yow yàggal ci ñun ko bal di wér allahumma amin say auditeurs yàlla bu leen ci dara lool.